Bamba Kassé bu Sampix taskatu xabaar également ci wàllu tàggat yaram alors grand Bamba ba tey euh, ci actualité li ci gën a fës euh, ma bëgg nag ñu ñëw tuuti am également sa gis-gis ci inondation yaa ngi koy junju sànq bi ngay nuyoo ñaa ngi doon masawu également ñi nga xamante ne jamono ji am nañ ci ay loraange perte nañ ci également seen ay matériel moo xam muy oto ak lu mu ci doon ñu gis nii euh, ndox mi bëri na loolu Dakar mais également ñu annoncé waat le Euh, ñëpp jàpp ni nag euh, dañoo annoncé déclaré plan bu nga xamante depuis lors mu ngi fi alors que ni gisuñu ci benn évolution yow personnellement ban ban ban ban ban gis nga ci nga ci am en tant que qu'observateur. waaw xam nga euh, déjà ndox mi li ñi mu gën a metti mooy jafe naa ñi si ñàkk seen bakkan am na ñaar ñoo xamante ne ci ndox mi nañu ñàkk seen bakkan am na mm-hmm. kenn koo xamante ne ndox ak courant mm-hmm. maanaam électrocution maanaam masse courant bu jógee ci ndox euh, moo ko fàtt hmm. ñooñu euh, mënuñu leen fàtt xam nga Sénégal malheureusement benn information bu amee wala benn drame bu amee dañ koy consommer en vingt quatre heures après ñu fàtte hmm. mais tey trois quatre jours après nañ xalaat ñi nga xamante ne nooyeetuñu hmm. ñi nga xamante ne seen mbokk dem nañ dencale te si ndox rek nañ ko jële ak nu mënti demee muy ki nga xamante ne dafa gaañu fële ci corniche bi. Mm. ñu ne sax moom génnoon na otom génnoon na mais dafa am lu mu doon dem di jëli far ndox mi bett ak nu mu mënti demee. ak guinéen bi âgé de 15 ak nu mu mënti demee moom également des jours après lañ ko gis. waaw bu ndox mi demeewul woon bu bu bu bu yàlla bu ndox mi demeewul woon noonu bu fekkoon ndox mi ba mu wàccee am na yoon wu mu jaar xëy na désagrément yëpp du am. Mm. Euh, ñu nangu tamit ni mbir mi du Sénégal rek du man rek euh, wolof Ndiaye xamu na la ko waxee. ma cee ko gën voilà du man dong bokkuma ci moo ko gën maanaam ak ndox mi fu mu mënti wàcc te loolu il faut ñu nangu ko ndax ñun suñu ndox moo ñu intéressé du dëgg. Hmm. mën nañoo nag nangu ni wàcc na Corée moo ñu ëpp doole fuuf am na fa ay dégâts wàcc na euh, nu mu tuddati euh, Europe wàcc na Amérique wàcc na fu ne Euh, mais du tere ñun suñu bos moo ñu moo ñu ñor. du dëgg moo ñu ñor de mënuñu am suñ suñu kilo di lijjanti. Euh, libre jàmbur libre jàmbur. d' accord waane lay doon sax nag. d' accord donc euh, inondation yi defe naa ni war nañ ci jóg war nañ ci jublu d' autant plus que dérèglement climatique bi daf ñu yóbbu ci cycle bu bees gis nga ndox ay taw benn fan wala ñaari fan wàcce ay plus de cent millimètres dina fi faral di gën a bëri. donc jumtukaay yi ñu ci war a def nañ ko def. Euh, loolu moo waral nag ni ci naan euh, loolu tout le temps sa à dire gouverner c'est prévoir mais euh, sa à dire prévoyance boobu nemmeekuñ ko ci suñu ay njiit dañuy bàyyi ba mu ne këtt nu joon ñu doog a déployer moyen am na loo xamante ne loolu mooy rey askan am na loo xamante ne bu ñu waxante dëgg penda am na loo xamante ne dépendre ci nit dañu waxante dëgg rek yàlla moo xëy wàcce vendredi cent vingt six millimètres xaw ma cent trente boo demee ci dëkku yi nekkul Dakar boo génnee Dakar ñoom ñu ngay dóori pooj ah. waaw ndax bàq bi tooy na xepp fu mu nekk nii mën naa toogaat vingt jours du taw garaawul du tere gàncax gi day jóg ñun ñi dëkk biir Dakar wala ñenn ñi dëkk ci yenn benn yenn zone urbaine yi ñun ñoo am problème problème bi ñu am mooy ndox mi bëri na gaa mais bu lu mu mënti bëri bëri bu wàccee dafa war a dem. dafa war a dem kay. lu tax demul. parce que teguñu jumtukaay ca wax peut-être nañ ko laaj ñoom ONAS ak ñuy demee noonu. ñoom nee nañ gis naa ko mu ne dafa annoncé ab plainte contre X parce que si ñi nga xam dañuy boucher li nga xam waaw ñoom nee nañ ma ni loolu kese la loolu mën na ci am impact nag ah euh, mais bu loolu amee it gaw ma ni ñooñu kese la benn ñaareel bi Euh, ouvrage yi nga xamante ne dañ ko defaroon pour muy drainer ndox am na am nay ouvrage parce que <laughs> bërkaati démb doxantu naa euh, dugg biir yëmbal génn jaar Kër Massar am lu ma fa lijjanti dem ba jaaxaay wiiri euh, ñëw côté Thiaroye am na zone yoo xamante ni daraan fees dal tey ndox amu fa inondation yi sax dafa mel ni léegi waa Ndakaaru la gën a jublu que waa banlieue. ah dëgg la de barki dem en tout cas ci taw bi mujj bi. mu dem sonn nañ ba bëgg a <laughs> ci taw bu mujj bi. waaw bu ñëwee ba. ñu ne Almadi mooy benn quartier bu euh, boo xamante ni bu am daraja. Mm-hmm. ci biir Ndakaaru mm-hmm. wala bu bokk na ci ñi ëpp daraja. Mm-hmm. ñu ne ba ñoom ñuy lap seen oto yi di di di fees nag ndox yu demee noonu y' a problème. y' problème te problème boobu vraiment ak lu ñu mënti doon état bi fi nekk moo ko war a lijjanti ba keroog. Euh, mais ça dit Bamba nag moo tax nit ñi jàpp ni état da ko lijjantul na mu ko war a lijjanti parce que bu ñu gisee ni depuis pratiquement ba Macky Sall ñëwee ba tey ñi ngi annoncé li nga xamante ni di le plan ORSEC financé à hauteur de plus de milliards. déjà sax ci loolu sax nit ñaa ngi laajte samp laaj ki nga xamante ni di Mansour Faye pour mu indi leen ci ay leeral ci xaalis boobu naka lañ ko gérer. plan Orsec bi moom la Macky Sall relancé waat ba ki war a laal coow li. waaw d'accord pourquoi ñu relancé lu nga xamante ni. loolu lay doxul woon léegi damay wax ak sa téléspectateur leen. dafa am plan décennal. mooy koppar yi nga xamante ne ci diiru fukki at état du Sénégal da koo natt ne dama koy def ci ay ouvrage d'assainissement pour permettre inondation jeex fi bokkul ak plan Orsec. te inondation jeexul plan Orsec mooy plan d'organisation des secours plan Orsec moom muy France di Sénégal di di Gambie di réew doon am na ay tooxi doonu yoo xam ne bu dalee ci askan wi il faut ñu déclarer plan OPSEC ndax plan OPSEC lu muy teg lu lu yomb la nag temps mooy Sénégal ñiy intervenir ci wàllu taw bi ministère de l'eau de l'assainissement ministère de la sécurité publique ministère de l'hydraulique ministère nangam nag am ay ministères yu bëri lañ ku te ne am ci sa wàll bu plan OPSEC jotee bu ñu ne déclarer nañ plan OPSEC mooy ministère yooyu yëpp dañuy jël seen doole ak seen moyen teg ko sous l'autorité du ministre de l'intérieur. mais doole boobu noonu ak. mooy askan bi dañu sentir ko ñoom. benn il est important ñu expliquer yenn concept yi. Mm. loolu lay tekki maanaam diggante comme taw bi taw na bëri na yàqu-yàqu yi bëri na gaañu gaañu yi bëri na ndox maa ngi ci yenn bëri bi man bërki démb par exemple sama kër dafa coupé courant guddi gi yëpp. da bokk na sax délestage moom ci ñëw xëy na bokk na li tax ma naaje yow mm. mais ñëpp xam nañ ni également poste de dispatching courant bi waaw bi nga xamante ne mooy dispatcher xaal mooy séddale courant bi ci diggante quartier yi ñëpp xam nañ nii ñetti fan a ngi nii ndox mi da koo feesal dell d'accord nañ donc loolu mm. tu vois donc ça veut dire que li muy wane mooy un malheur ne vient jamais seul ndox mi bu wàccee li ñu daan xalaat mooy ah ndox mi na génn sama kër na génn sama koñ na génn sama li mais gis nañ ni impact yi lay laal na fu ne laal na courant bi laal na waa ONAS ñeenti fan a ngi nii tamit ak lu ñu lu ma leen critiqué critiqué man maa leen dàq mm. ñu ngi ci mbedd mi di dugg di def ay intervention di déboucher ak gauche à droite et cetera et cetera mm. donc plan Orsec lool lay tekki mm. li muy tekki mooy fii ba ñu naan plan bi teggi nañ ko ministre de l'intérieur rek mooy interlocuteur moom mooy ak ay service am ñoom mobiliser toutes les ressources di jéem ndànk-ndànk di fexe ba génne nit ñi ci guuta gi ñu nekk loolu mooy plan Orsec léegi am na ñu ne effectivement lu tax chaque année ñu am plan plan Orsec ci yoon bu fekkee ni am nañ lépp yemm na maanaam plan d'assainissement yemm na ndox mi am na fu muy jaar saa bu tawee vingt minutes après doo gis ndox courant du coupé lu courant du dagg dara du xew bu boobaa effectivement plan Orsec jaru ko mm-hmm. mais tant ñu ngi am situation yu mel nii. plan OPSEC day am léegi situation yu mel nii. lan mm. moo ci suñu wàll. il faut mm. être très aussi. Mm. am na loo xamante ni. responsabilité gouvernement la. gouvernement justement gouverner c'est prévoir xam nañ ni euh, mënuñoo natt nag ne bés sàngam nangami litre ndox dina wàcc si Ndakaaru mënuñu ko natt mais mun nañ natt ni léegi am nañ information que taw bi dina ñëw de façon désordonnée. te mën te buy ñëw cycle bi ñu nekk mooy dañuy am ay taw yu bëree bari donc war nañ mën a réadapter seen plan bi nga xamante ni moo war a bu ndox mi wàccee mën a dem. effectivement donc am nañ si responsabilité. Mm-hmm. nit ñi aussi am nañ si responsabilité. ban responsabilité parce que yooyu gis gis nga fi ay jël ay mbalit di ko sànni ci ay ay égout ay yu demee noonu. Mm. gis nga ko loolu du yoon dañu wante dëgg rek. parce que boo ko defee yow. mais ba man dalal naa fi man man man man man dalal naa fi Naar Diop euh, si si si si si njiitalu Babacar Mbaye Ngaraaf seen xam-xam màcc la ci wàllu inondation mu ne eh, canal yi nga xamante ni ñoom autorité ñi ngi tuumal nit yi ni ñoom ñoo fay sotti ay mari ko loolu mooy bouché li nga xam mooy ndox bi mu ne loolu amul mun ne ñoom seen bopp bu ñu nga mooy canal yi ñoom ñooy gas ba pare jëlaat lañ gas ko ci ko ci côté ne loolu mooy waral ndox bi suñu du dem ni war a demee mais nee na kenn ubbiwul benn canal di sotti mbalit te ku ne xam ne UCG fan yi dañ ñu liggéey liggéey ba ca war mbalit ba ma nga dem fa ma ngay dem fa mu war a dem lu ne fàng kenn du ko yow yaa gis ay vidéo yu ñu la won yu wane ni gis nañ ay mbalit yu ñu teg foo xamante ne ndox la gis nga wala gisoo ko bokkul ak li nga wax li nga wax beneen problème la li nga wax man nii wax naa ko te man du ma spécialiste su inondation du ma spécialiste su assainissement mais lu ma teg sama bët la hmm. effectivement xam nga dama nekkoon di liste hmm. dinaa le gouvernement mooy premier responsable hmm. population yi mooy deuxième responsable mais aussi loolu yu mel noonu am na maanaam njëkkati ñëw def euh, parce que ONAS daf koy jox ay société ne leen bu taw bi di waaj ñëw na ngeen dem ngeen goqi fii yoonu ndox yi di jaar ngeen dindi suuf sa fa ne ak salte ya fa ne loolu la ñuy woowee opération pré mais opération pré-hivernage boobu ay société nañ koy jox société yi ñu koy jox man jàpp naa ci benn société boo xam ne parce que sama koñ ñoom ñoo koy toppatoo société boobu day dindi salte yi ba pare teg ko ci côté bi donc bu tawee salte bi day dugal ci biir effectivement donc yooyu yëpp mu nekk ay yoo xamante ne mais loolu yëpp dafa fekk amuñu système de gouvernance bu baax parce que gouvernance bu baax mooy bu ma la dénkee liggéey damay jaaral say say tànk xool li liggéey ndax baax na wala baaxul mm-hmm. gouvernance bu baax mooy même naam sax am na ñoo xamante ne xëy na dañuy jël ay mm-hmm. mbalit di ko def ci ay canal mm-hmm. mais opération préventive loolu la war a jëriñ dafa war a jëriñ ñu mën koo xool mën koo teel gis mën koo dindi bu ba pare nag boole ci di di sensibiliser nit ñi parce que nit ñi moom tànk jàpp ah mos nga ñëw fekk ko mu koy def nga jàpp ko li nga mën rek mooy di leen wax wax ju rafet di leen wax ni lii bu leen ko def alors ci opération pré hivernale boobu nga taxaw également euh, ministère de l'urbanisme également defoon nañ ci ni ki fan yi ab communiqué ñoom it di sensibiliser askan bi ni euh, les eaux stagnantes yi nga xamante dañuy dañuy stagné ci kaw bâtiment yeeg yooyu nañuy faral di ko dindi parce que loolu mun na favoriser les effondrements te gis nañ loolu moo nekk di am parce que ce matin Kër Massar am na benn bâtiment bu fa effondré ba benn bébé fa ñàkk bakkanam rek c'est-à-dire ay du yow du yem ay du yow ci bopp borom euh, effectivement yooyu c'est des c'est des mais aussi bu weesoo ndox bi nga war a évacuer parce que ndox normalement waru taa ci kaw terrasse bu fekkee ne terrasse bi c'est bien fait mooy li ma la rek cest le problème il est très complexe c'est-à-dire ñun sénégalais xaw a am euh, ay jafe-jafe ak suñu bopp le problème il est très complexe ndox normalement warul taa ci terrasse bu fekkee ne terrasse bi tabax nañ bu baax ndox mi bu ñëwee dafa war dem yoonam mm. mais effectivement bu fa ndox mi di taaju bu yàggee fer bi nga xamante ne moom la ñu defee dal bi ndox mi dina ko lekk. jàppoon tam lu nu mel ci wàllu communication parce que mais jàppoon lu a a a xam danger moo nekk ci ci ci ci ci ci ci waaj li nga xamante ni mooy nawet. non pour man yeggaguñu foofu. ah lu tax. pour man. ñëpp xam ni nawet moom ala kulli haal at mu ne dina am. mais bëri na Sénégal lambda bi nga xamante ni moom xamul ni peut-être terrasse am bu amee ndox plus de ñetti fan peut-être loolu mun na favoriser li nga xam mooy effondrement. waaw mais bu fekkee ni tabax bi jaar na yoon te war na veiller parce que boo jëlee ku tabax terrasse ku ne ay millions nga ci def ak fu mënti doon terrasse bu bu jarul million mu amul jaar na boo demee ba jël say million liggéey fanweeri at wala lu ko toog ëpp ñafe sa laayaf takk sa biir fexe ba am xaalis ba tabax sa kër. war ngaa veiller à ce tabax bi baax dañu waxante dëgg tamit mais su euh, euh, gouvernement bi ak euh, protection civile ñoom it ñiy contrôler bâtiment yi war nañu am fulla ba bâtiment bu ñu ciblé contrôler ko xool ne baaxul ñu taxaw tàmm teg boroom coono goo xamante ni dina ko changer wala mu defar ko mais est-ce que dafa la mbiri sooxe. wala wala ba ci wàllu location mi ngi ko xam day ñoo gis benn bâtiment bi nga xamante ni mais en état en état de délabrement très avancé ñu ñëw loué fa et que yu ni mel tamit. d'habitude sa yu bëri sax moo ëpp li nga man de Bamba Kassé bëgg dëkk Ndakaaru jaraluma may dem di dëkk ci yenn xeetu kër yi man laa wax xëy du yow xëy du du réfléchir noonu. mais dafa am nit ñoo xamante ne dañuy xoddaliku ak nit ñoo xamante ne xëy na àdduna moo leen di njatt wala n'importe quoi ba bon ñoom xëy na duñ ko defee noonu. mais dans tous les cas. Hmm. li am ba des mooy état moo war di veiller si suñu sécurité. waaw mu ngi noonu état dañ ne la même contre toi-même l'état doit te protéger. cest à tey bu ñu demee ba mu wóor leen ni yow danger nga si sa bopp état dafa am sañ-sañu jëfandikoo doole. pour ñëw protéger la contre toi mm-hmm. moo tax yenn nit ñi nga xamante ne xëy na léeg-léeg am ay problème mu xel. wala nga xam ne dañuy mën a gaañ seen bopp wala defee état day imposer day utiliser doole pour jàpp leen yóbbu leen fañ leen war a mën a fajee yóbbu leen fañ donc bu fekkee ne état dafa ñëw fekk kër goo xamante ne am na ñeen fukki at wala juróom fukki at ñu xool natt ko xam ne kër gi bu yàggee as tuut ci daanu la jëm. même bu fekkee ni décision bu baaxul la parce que politiquement c'est pas une bonne décision nga ñëw ne nit ki da ngay génn kër gi dañ koy toj mais da ko war a def bu fekkee ne quartier la également parce que fekkee dafa bu ñu évaluer rek Sénégal dafa bëri ay ingénieur bëri borom xam-xam bëri ay xamante ne seen xam dafa màcc jëm ci lu hmm. bu ñëwee dañuy def plan décennal de lutte contre l'inondation man plan bi lan na ma si jaaxal amul benn quartier bu ñu raser wala amul benn quartier bu ñu déplacé dañu ñëw quartier bi lu mu nekk nekk ci suuf lu mu nekk nekk ci zone boo xamante ne nit waru foon dëkk dañuy ñëw rek jéem a fa tabax benn ouvrage boo xamante ne bu ndox mi ñëwee mu collecté ko yóbbu léegi bu ouvrage bi doxul. Mm-hmm. gis ngeen fii zone de captage. Mm-hmm. zone de captage boo ko xoolee même si c'est vingt ans plus tard mais un état loolu lay doxee. jaay nañ terrain yi ok am na ñu joxe ay autorisation ba ñu ba ñu bu fekkee da ngaa dem ba ci situation boo xamante ne xam nga ne quartier bii ah c'est vrai ay nit dëkk nañ fa mais ndox yoonu ndox la mm-hmm. utal solution nga déplacer ñu dëkk si quartier bi jox leen terrain yi bees ut jël ci gafa ak réew mi jox leen ñu tabax feneen nga dindi nga dindi quartier boobu loolu xaar si ñoom euh, beneen beneen mbir rapidement liñ ci